ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal jàmm ak tawfiq defal ko sunu réew defal ko mboolem réewu jullit fépp jullit mën a nekk ci àddina ak réewu jullit man faa féete yàlla yàlla sàmm leen aar leen teg leen loxo di am ay kàddu yu gàtt rek yu ñuy yëkkati mu tolloog situation bi fi nga xam ne fii la réew mi toll ci wàllu diine ak pàcc-pàcc kuréel yi nga xam ne dañu askanoo ci lislaam dañu yàgg di bari dafay am yi ci jaar yoon ak yi ci jàdd yoon waaye kuréel gi moom mënu la ñàkk benn mu nekk kuréel goo xam ne moo dëppoog alquran ak sunna wala mu nekk kuréel goo xam ne dëppoowul ak alquran ak sunna waaye faww kuréel gi am kuréel yooyu nag lu ñuy bari bari dafay am kuréel yoo xam ne dañuy nekk danger maanaam du ñu yem ci nekk kuréel rekk wuuteeg alxuraan ak sunna wala ñu dëppoog alxuraan ak sunna waaye jëmmi kuréel googa doxalinam ak ni muy xalaatee ak ni muy jëfee mën na am lu muy yàq ci pénc loolu nag bu amee kuréel googa kuréel yépp dañoo war a jaamaarloo ak moom mu bàyyi doxalin woowa des di nekk kuréel di am àq bi ñépp am ci woote wone ne la muy woote moo dëppoog la yonent doon jàngale sallallahu alayhi ak i saabaam keneen itam woote te gëm ne la muy woote moo dëppoo ak alxuraan ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu may ko ñëpp su ko defee kuréel yooyu yëpp nag mën nañ di waxtaan ci cadre xam-xam loolu la ñuy tuddee munavara da may yëral ma yëral la fi nga teg sa tànk ak li nga sukkandiku ci li ngay def ni mu dëppoo ak alxuraan sunna wala ni mu wuuteeg moom walla yu ni mel su ko defee loolu ak jàppalante lay doon su ma la waxee fi ma ko teg su fekkee ne lu wér a wér la nga xam ne am na fum tege su tegewul foofa nga laa biire ma loolu nag du caagene kuréel yi ñoo ci jàkkaarloo waaye ñi bokk ci kuréel ya sañ nañ ku bokk fële wéet ak ku bokk fële ñu waxtaan ñoom ci seen biir dimbalante loola genn kuréel bañul ku ko def geneen ga yaakaar naa ne waaye loolu nag su fekkee ne ci cadre xam-xam rek lay doon moom jafe-jafe du am te gëm naa ne dana am kuréel yoo xam ne dootuñ exister ndax suñu demee ci cadre xam-xam mënees na leen a ci seen kuréel googa ba ñu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk loola lan moo koy waral mooy day fekk ne kuréel googa sampewul ci ay lay yu wér kuréel googa amut ay ndëgërlaay ci alxuraan ak sunna senanti bi ak jëf yi e, salafu saalix nooneet ngay gisee kuréel yoo xam ne buñ demee ci cadre xam-xam kenn mënu leen a yëkkati duñ séqi benn jéego kenn du leen déranger parce que fañ ne foofu mooy dëgg-dëgg alxuraan ak sunna wax ji nag ñëpp ko mën a moom maanaam kuréel gële nga xam ne ay tijaan lañu mën nañ koo moom nga xam ne fa ñuy taxaw kenn du leen fu mën a jële wala fa ñuy taxaw dañ leen fay jële bañ jeex ndax taxawuñ ci alxuraan ak sunna lool loolu da jàpp ne mën naa nekk ña nga xam ne ay wahabi lañ ay wahabiya lañ itam ñoom itam seen kuréel googa mën nañ leen faa jële bañ jeex tàkk ci cadre xam-xam ndax day fekk ne lay amu fa wala boo kenn du leen mën a déranger parce que ñoo taxaw ci alxuraan sunna yëpp mën naa nekk wa inna aw iyaakum la ala aw fi dalalin mubin léegi nag bu ñu demoon ci xam-xam kese kese kese bu amul bu raxul dara eh, jàpp naa ne maanaam saafara dina am ci lu baree baree bari saafara dina am ci lu baree bari waaye nag li yàq pénc mi ak li nga xam ne mooy indi e, pëccëxoo mooy dafay am ci kuréel yi kuréel yoo xam ne maanaam seenu doxalin moo mënta ànd ak jàmm di am ci pénc bi seenu doxalin te lool nag man kuréel gi ma xam ne aw doxalinam munta ànd ak jàmm ci pénc mi mooy alwahabiya loolu nag dafay am ay firnde yoo xam ne ñooy waral loolu maanaam ñoom lay teg pour leeral loolu wahaabiya itam buy tàmbali dara buy samp benn mbir da koy samp ci néew doole lu bare bare sax ci mbir yi néew doole lañ koy sampe waaye am na kuréel yoo xam ne néew doole ga du néew dooley xeex du néew dooley physique néew doole ci ay nit rek la waaye lañ yore ci leer lañ yore ci eh, lu mën a jariñ buñ tàmbalee di ko tasaare rek dafay làmb nit ñi te duñ saaga kenn loolu day am ci kuréel yi loolu itam gis naa ne kuréel gi nga xam ne mooy attijaaniyatu ci noonu la taxawee maanaam ba muy jóg jógul rek tëb daldi di naaw waaye benn benn nit ñoo ko doon xam waaye ci lu dul xeex ci lu dul saaga ci lu dul benn jàppante ci lay jékki-jékki rek di tas tas bu gaaw a gaaw a gaaw a parce que la mu làmb ci njariñ la mu làmb ci mbaax la mu làmb ci yiw la mu làmb ci jege yàlla la mu làmb ci nàngam xuloo du ci am xeex du ci am ŋaañante du ci am te dana tas ci àddina bi yépp ci diir bu gaaw a gaaw a gaaw kon da gis ne kuréel googu la mu yore ni mën a jariñee pénc bi mooy tax lu mu néewoon doole ca ba muy tàmbali day day jóg rek di tasaaroo kon boo xoolee tijaaniya moom amut luy déranger pénc bi moom li mu yor mooy njariñal pénc mi maanaam bu ko xasee ba wasaare rek ñëpp dañuy jariñu te lépp day neex ci ñëpp wahaabiya nag moom itam dafa juddu néew doole jékki-jékki daal di tasaaroo waaye moom ba muy néew doole néew doole lan la woon néew doole argument néew doole ay benn benn wala néew doole jumu mu ak nit ñi nga gis ne dafa néewoon doole ci jaamaarloo ak nit ñi physiquement pour xeex léegi nag ba muy tàmbali nag di yaatal dooleem tuuti tuuti ba am ci tuuti rek dafay tàmbali di song dafay tàmbalee di attaqué dafay tàmbale di ray pour affaire bi di tasaaroo affaire bi nag di gën a tasaaroo ci jaasi ci xupp nit ñi ci noonu boole nag lañ jàppee ne mooy xam-xam ñu ko ci ci loo loola lañuy teg waaye loolu teguñu ko ci taawilatul niqaash teguñu ko ci table de discussion maanaam kaay leen ñu waxtaan déedéet moom affaire baa ngi nii moo xam wér naa wéru teg ñun daal lii lañ jàpp ne mooy diine léegi nak boko gemut dañuy jaamaarlo ak yow xex ak yow waaw daati dekkal ci l'islam wala bok ñu indi ci l'islam lu ñu tuddee jihad bo xam dañ koy jihad ak ay nit yo xam ay julit lañu waye yow nak dañ leen di ñàkk a ay julit pour nga xex ak ñom lool nak di dem affaire bi di tasaaroo nag wahabiya gi di yaatu di yaatu di yaatu ba yaatu non nga gis ne kon mom ba mu juddoo nam doon yaato dooley jaasi la nii lay yaatoo yaatoo yaatoo nga gis beneen kuréel bu ñuy wax tijaaniya di yaatu mais pas doole jaasi ci wax ci ci ci ci jàmm ci dal ci ci muy tasaaroo nga gis ne kuréel gëli nga xam ne mooy yi boroom xam-xam yi jàngoon ci jamono jooje muy génn boroom xam-xam yi doon jàng ñooy ñëw par ndànk nag boroom xam-xam yi ñooy ñëw par ndànk nag ñoy ñëw par dank dank ñoy ñëw par dank dank affaire bi saaro borom xam-xam bu ko deg wax ko moromam ñepp daati eh, tourner autour di tariixa bobu borom xam-xam yi bari ci lool rew mo dem borom xam-xam yi ya dugg ci eh, tariixa bobu te ken xexu len ken ngañu len ken defu len dara bo demone ba muritani fonkali borom xam-xam yi ci jamono Seydi Mouhamed al Hafiz ak Tijaan yi maanaam ñu bare bare bari dañoo dugg ci tariqa bi ñu fay tudd ci kàngaayu borom xam-xam ñi ci ëpp ay tijaan lañu kenn xeexu leen kenn ŋàññu leen kenn waxu leen yi kenn naxu leen itam dañoo gis lu leer te itam dara nëbbuwul ci seen bët ndax jàng nañ ba maanaam yéey këyit yi comme nuñ koy waxee te yéey këyit soo baaxul waaye eh, maanaam jeexal nañ téere yi moom nga dem Maroc nga dem Algérie nga dem nga ñëw Sénégal nga dem Mauritanie nga dem fu neex boo gisee jaasi du jóg dara du xew léegi nag ñaari kuréel yi kan moo ëpp jàmm ci pénc mi koo xam ne lim yor moom boroom xam-xam yi nangu nañ ko bokk ca am na téere boo xam ne dañ ko bind uniquement tara tarjamaal ca maanaam waxtaane ca borom xam-xam yi ci biir tariixa boobu borom xam nga ba may tàmbali waxoon naa la mën naa am ñoo yore dëgg mën naa am yoruñu dara waaye nga tàmbali gis ne boo ñi xam ñi nga naw seen xam-xam ñu dugg ñi nga naw seen xam-xam ñu dugg ba ñu mën a bindub téere boo xam ne ay boromi xam-xam kese lañ ci dajale ku nekkul borom xam-xam même boo jàppee tariixa bi kenn doon tarjamaal foofa ñu tuddee ko fatxul malikil allaam بتراجم بعض علماء طريقة التجانية الأعلام كنيوا محمد الحجوجي مم كتاري محمد الحجوجي مم كيف كيف لين بند من مسلم دي وهابي بند لطول أي تيري تيري خم كلا هذا حديثي فقهي سيرة دين النحو يو لم تبند وهم لين بند طريقة لم بند تيري خم خم رك أقلم جانجل حديثي أقل تدف تفهم بخارج مسلم من مسلم دي وهابي بند لطول nga gis ne kon borom xam-xam yaa ngi adhéré ci tarixa boobu nga gis beneen kuréel boo xam ne wahabiya man xawma borom xam-xam boo xam ne dafa gis wahabi daat koy nangu bokk ca xawma ko ca tàmbali ma ba tey waaye li amoon mooy dooley jaasi bi moom moo doon dem moo doon tasaaroo ñi ñu woo ñëpp dañ leen di woo yónnee leen leetar boo xam ne dangay gëm lii ñu la présenté nii ni mooy diine ji da koy gëm boo ko gëmul nag jihaad sunu diggante jihaad rek fi def xeex rek fi def léegi loolu la Muhammad ibn Abdul Wahab daan tasaare te loolu taalibeem yi ñoom ñoo bind taarix boobu ku ñuy wax ibnu Gannaam moo bind taarixu Najd boo xam ne taarixu sëriñam la Muhammad ibn Abdul Wahab di ci waxtaane xare yim xare ak ñim song ñim rey ak yu mel noonu yooyu lañ ciy wax kon jihaad ja jaasi mooy taxaw pour loola tasaaroo nga gis fii nag moom tariixa ba maanaam dara du jóg amul xuloo amul werante amul dara te ñépp ngi ñëw buy doog a jëmbatu nag moom wahaabiya bu nekkee tuuti du utiliser doole day jéema a argumenté ndànk-ndànk bu amee fum jàpp ci doole nag loolu lay réyal ndànk-ndànk maanaam léegi waxam ci loolu lay jëm boo xoolee wahaabiye yi eh, depuis dajaloo biñ dajaloo woon ci grand théâtre te docteur Mouhammad Ahmed Lo jiite ko boo xoolee langage yu démonstration de force foofu la tàmbalee wane mbooloo wane maa ngi fi nekkoo fi sax existé woo carrément waaye loolu nga amal kas tuut noonu loolu ngay jéem a euh, maanaam multiplier jéem ko réyal réyal gi mooy da ngay woote woote boo xam da nga naan fu waaye jóge na ñëw léegi ñu fexe ba nit ñi jóge Louga ñi jóge Kaolack ñi jóge ba Gambie ñi jóge feneen ñi jóge feneen ngir ñu mën a feesal benn saal ba tuur ko ci bitti léegi su ko defee sun mbokk ma eh, eh, ay Elimane Ndiaye daal di jël micro bi daal di ci bitti ñoo gën a ñoo ëpp fuuf ñi nekk ci biir yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay boobu ñu taxaw ci naaj bi yàlla na leen ko yàlla bindal ay tiyaaba nga xam ne ah ñii ñii am nañ tuuti mbooloo ah ñii de ñii de nangam loolu nag léegi langage boobu mooy continuer léegi nag fan la jëm loolu lañu war a gëstu langage boobu ndax du ay argument du kaay ma waxtaanal la kaay ma nangam léegi langage bii mooy dem muhammad ibn abdul wahab nii la tàmbale woon après nag langage yu jaaseeg ku deful nanga ma dal sa kaw ak yooyu tàmbale di yaatu di yaatu ta jóge ca nag tàmbale xeex jóge ca tàmbale toj jóge ca tàmbale màbbal jóge ca jóge ca jóge ca ba mbir mi yaatu kon boo jàppee fii ci Sénégal bi 24 octobre 2021 Grand Théâtre feesal bi ak ku wax wax langage mbooloo mi liñ toll ñëw nañu ñi jóge fee ñi jóge faa ay kaar yoo xam ne gratuite doo fay nangam wàññi paas yi pour nit ñi mën a ñëw loolu lu ci nit ki bëgg a wone te discours lay def discours bi maanaam ñi ci Dakar rek suñ daje woon ñu dugal ko ci sit yi ñu def ko yëpp dan yëpp danañ ci jot waaye lan moo tax ñu bëgg nit ñi jóge Louga jóge Louga ñu jóge Kaolack jóge Kaolack wahabiyun ya nekk Gambie jóge Gambie ñu nekk Richard Toll jóge Richard Toll fu waaye jóge daal ku mën a jël avion ñëw sax jëlal avion ñëw pour ñu daj pour mbooloo bi xam bari léegi mbooloo mi bari nag ñu jël kàddu jël micro wax ci mbooloo mi niñ baree ñu wuy ci ak ca naaj ba lañ taxaw nag xam ne ñii moom affaire bi nangam ñii rëy na loolu lay tàmbalee nag loolu ngay gisaat mooy ñëwaat ba ci tribunalu démb tribunalu démb maanaam euh, fexe ba nit ñi nañ fees fépp ci tribunal bi kaw suuf fu waaye xool ak gis leen ñu ne ah gars yi bëri nañ di fekk bëriwuñ nag ndax ku nek ku nekk bu delloo koñam rek ci nga xam ne bëriwuñ kenn lay doon ca ba maanaam ay kër wër ko kenn bokku ci kenn gëm-gëm waaye nañ feesal benn place ba place boobu fees ñu yuuxoondoo su ko defee ñu ne hii ñii day nàngam loolu nag dafa am fu mu xam nga wax naa la fi mu tàmbalee faw nga xool xippi sa bët xool ca kanam fan la affaire bi jëm nag du ay li may wax nii du argument de du ay affaire xaala laaw xaala rasul doole mooy propagé wu noonu ndànk-ndànk ndax démb bi ñu defee kii bi bañ ne euh, renvoyé nañ procès bi maanaam àjjuma bee di ñëw lañ koy def ci saa si affaire bi dafa changé am nekkatul déglu gañ dana ñëw toog nii xaa wa salaam salaamaaleykum yaa axil karim noonu daal dem léegi dafa mujj na nga gis nag ay yeneen kanam yeneen kanam yoo xam ne bu yàlla defuloon jàmm maanaam ak jàppante moom faaw mu am fa ndax ku mën a ñëw ba ci kër yow jóge fee di songu nit ñi nit ñoo xam ne defuñu la dara waxuñu la dara ñu mel ne man sax nga xam ne man du man maa doon porte plainte man taxuma ci baax taw maanaam nit ñi mën a jóge fu nekk naa fekk nga nangam nangam da bañ sunna waaw nga xam ne ñoom nit ñi songee ni mooy xeex rek da a def te bari nañ bari koo xam ne ci saal bi léegi jàpp nañ ne moom moom fii fii pare ku pare pour xeex ñun pare nañ ndax mbooloo mi ñëw na ba ñuy bloqué nit ñi né no tok leen xaar leen ñom wahaabi yu ne bañu genn après ñun ñuy doga dem pour ñu pour ñu daw coow li daal mana nga xamné ne man sax damay taxaw taxaw ne yegg taxaw di xaar pour wahaabi yu ne dem ndax léegi suma genné wara jël sama auto wala jël taxi dem loola mën na indi fitna daal man man dooruma kenn saagawuma kenn xasuma kenn maanaam bi war a génn nii rek jël sama oto léegi faw pour ñu bañ benn problème da ngay taxaw ndax wahaabi taxaw nañ ñi ngi yuuxu ci bunt bi ñu ngi taxaw di kii te yow la ñuy provoqué yow affaire bi ku xippi war nga xam ne man provoqué wuñ ñoom population ak état ak réew mi loolu lay provoqué ñoom ñooñ lañuy ñuy pour wane ne ñi ngi ñëw ñi ngi am si doole am na fu ñuy toll bu ñu avancé tuuti lu waaye bañ bañuñu ko waaw ah, dañuy taxaw ci mbedd mi saaga dégg nga yor suñuy kii jaaseeg yëpp taxaw waaw ah, bu xeex jotee ñu xeex foofu foofu lañ jëm foofu est-ce que qaala allahu la qaala rasulu déedéet est-ce que argument la déedéet fi ñu fi ñu du argument fi ñu du argument loolu moo taxoon al ustaadul kabir docteur Mouhamed Ahmed Lo mu woon ni ñëpp gaa bari ci kii jóge fu nekk loolu stratégie la ba nit ñi xam ne mbooloo mi bëri na lool ñu ne ah kii de kon kii de kii de am na am na ñu rangé wu ci gannaawam ñoo xam ne am na luñ ko jaral loolu mooy am suñ jàppee kenn itam nga xam ne léegi téye nañ Oustaz Omar Sall ñoom boo moytuwul sax est-ce que def marche sax maanaam di dox obélisque wala nangam nangam bari lool pour wax libérer Omar Sall wala yu mel noonu maanaam daal ñoom wàll luxatu doole langage démonstration démonstration de force loolu dafay feeñ lu bare bare léegi nag loolu fan la jëm est-ce que mën nañ toujours bu kenn taxawé ay nit bari ñëw sonk ñu lay kon ñu ne leg dañuy arranger dañuy ki dédé tax ci xex xex la jëm ci da am na han daara ji lañ jogé duñ daw man dembu lu graw graw graw mo am ci tribunal bi ah graw graw bu yalla deful won jamm te manitam manam bayiwuma ci xel ma ci xel mooy dama jóg am procès bu am ay tijaan ñoo porté plainte Omar Sall Omar Sall dafa wax loo xam dafa dal ci kaw tariqa bi kon loolu wareef la pour man ma dem fekke loolu mënuma woon porté plainte ma kon man ñàkk naa fayda foofu eh, xeexuma kon man daanaka fulla bi des na kon nag teew moo mënta ñàkk ma ñëw rek pour teew ñëw toog kese pare wala génn affaire bi war a am problème daal ba si ay jigéen nga gis ay jigéen yu lay jox xar bi yow waaw ku la gis ne eh xool ma nga ne kee la léegi fooy mujje kaay leen ñu xeex lay mujje de ñu ne Oustaz Modou Kamate moo doon xeex ci tribunal ba dóor nañ ko fa ba wulli ko léegi ay mbokkam daal di jóg affaire bi fan lay jëm ko te kenn du jotee tir tribunal faaw ñu demaat ajjuma léegi nit ñi war nañu xalaat yoon wii nag nii wahaabiya nii la juddoo amut woon ay doole argument yi mu amoon itam mënul convaincre nit yi mu amoon mënul convaincre nit waaye ñuy tàmbali di soox ci argument yooyu ba am tuuti nit yoo xam ne gëm nañ idéologie bi ñu tàmbali leen di wan ne gënoo ñu gënu leen ñu fee yey ndànk ndànk bu ñu xoolee ci taarixu Muhammad ibn Abdul Wahab eh, dafa judd ci kër goo xam ne baayam ak eh, ay kiiwam yëpp ay borom yi xam-xam lañu waaye nag moom am na gisin boo xam ne bokku koog askanam bi wala wala bokk bokku ñi nga xam ne ñoom la ñoom la dëkkal ci kër gi wala ñi mu bokkal société bi léegi nag bi baayam faatoo mu tàmbali di woote ndànk-ndànk am na ñu wax ne sax bi baayam di dund jéemoon na di jéema feñal lolu waye affaire bu mujju do soti gannaaw bayam dal la gën jël mbir mi amé di doxal dang dang doxal googu mu ko don doxal euh dafa am problème blocage xam nga lu wuté li nit ñi xam rek même suñu amul argument itam lool rek day bloquer affaire day bolaké mbir su dul mbir yàlla loolu da koy bolaké léegi nag bi loolu amee léegi muhammad ibn abdul wahab daan ne faw mu gis koo xam ne dafa am doole ndax moom argument yeeg xam kii même bu leeree bu fekkee leer na ci moom ne lii mooy sunna lii mooy nangam lii ñu nekk ni shirk la ñi nit ñi loolu leerul ci ñoom comme leerul ci ñoom nag pour mu avancer day day jafe léegi moom faw mu am ay nit ñoo xam ne am nañ doole ci nguur mu daati lënkaloo ak ñoom lënkaloo ak ñoom xam nga boo demee ci téere bu ñu xam mashahiru ulama i najd man téere yooyu wax yëpp ñoom ñoo ko bind ñoom dañu wax ne lam yasta bi daawati wa yusarrixa bi inkaari shirki illa baada wafaati walidihi loolu mooy mille cent cinquante trois ci la tàmbali di woote woote boobu nag ba mu amee ay nit yu ko ci topp ba mu amee ay nit yu ko ci topp ci la tàmbali nag di utiliser démonstration de force maanaam suñu waree def dara loo xam dañ ko war a exécuter dañ koy exécuter parce que mbooloo maa ngi fi waaye avant muy am mbooloo loolu mënu ko woon moo tax mu ne wa axada yamuru bilmaarufi wa yanha anil munkari wa yucaaqibu alayhi mujj léegi lim lay tere te naan la lii shirk la boo ko bàyyiwul da lay duma loolu kañ la wa dalika baadama tabiahu ala alxaqi unaasun min ahli xuraymala shaddu azrahu bam amee ay nit ñu taxaw ci loolu mu jàppi dëgg ñu jàppale ko ca ci la tàmbali nag ku deful lim wax mu duma la est-ce que loolu amoon na ko avant déedéet est-ce que dafay convaincre nit ñi déedéet force mooy mooy ñëw moom lay utiliser gannaaw loolu mu dem ci koo xam ne dafa jiite ab dëkk bu ñuy wax uray uyay uyayna ñu koy Usmaan ibnu Maamar koku bur la wala bok buura ko fa tek kilifa la ca fofu mu nek mu ñew wax ak mom convaincre ko mom bur bi pour mu am ci bur bi doole xam nga kon argument yi anam kay leen wax ci xam-xam déedéet lool de argument yi mënatu la dem faw mu ci loxo nguur pour meuna départ mu dem nak convaincre bur ci ne ko dañ fee war a jële nangam ak nangam ak nangam waxtaan ak moom te loolu dana gën a yaatal sa nguur yow te buur bi bëgg na lu gën a yaatal nguuram buur bi ne ko acca bismillah ñoom nag ñu ànd ñoom ñaar ci dooley nguur googu Ousmane ibn Maamar amirul Uyayna ak moom Muhammad Abdul Wahab ñu tàmbali tasaare ñoom ñaar itam ay nit tàmbali leen ci topp ndax buur kilifa gaa ngi ci ñu dem ci yenn garab yoo xam nit daa dafa taxaw di ñaan ay soxlaam naan garab gi de garab gu baax la garab gi de diw toogoon na fi ñu ne loolu da ngaa jaamu keneen ku dul yàlla daati dagg garab yooyu yépp bépp bàmmeel buñ doon wax ne bàmmeel yii de ñu baax a fi tëdd ñu nàngam ak nàngam fii de nàngam ñu maasale ko màbbal yépp loolu ñoom ñoo ko wax ci seen téere de ba ci yenneti bàmmeel yoo xam ne ay saabaa fa nekkoon lañ tabax ci bàmmeel bi nii yépp ñu dajj ko wa kaana alcheikhu huwa alladi tawalla hadma qubbati zeyd ibni alxataab bi yadihi فلم يبق بعد ذلك وثن في هذه البلاد التي تحت ولاية عثمان بن معمر maanaam bàmmeel yiñ taxoon di ko di di ñaan seen soxla yooyu ay ay ay xërëm lañ ko jàppee comme li suñ Omar la waxoon ne ñu seen yàlla yi ak mbëri làmb yi maanaam yàlla yi mooy lan sëriñ si foto sëriñ si nii sëñ Touba Alaaji Malick dégg nga bu Kunta Njaasaan ay Cheikh Tidiane yooyu foto yooyu maanaam yooyu mooy suñu yàlla yi ñun seen yàlla yi ak mbëru làmb yi ñoo yam noonu la Muhammad Abdullah jàppe woon xabru yañ daan jaamu dafa ja ay yàlla la ko jàppe xërëm la yu ñuy jaamu teg teg rek liy dox ni moo doon dox démb kon sukkandiku nag ci nguur pour mën a dem ci ba amee doole jooj nag ci la tàmbali nag def lu baree baree bare ci biir foofu sax raj mu na fa jigéen jigéen ju ju ju njaaloo te fekk amoon borom kër moom moo ko raylu moom Muhammad ibn Abdullah ci ci ci lan ci ci ci ne moom am na nguur taxaw na dégg taxaw mooy kilifa léegi day saña di wax di dindeeg di kii nangam nangam fa fa amara alayha fa rujimat noonu la doxee doxee nag ba gis ne am na feneen fu gën a yaatu te mooy deriya ndax ponkal moo fa nekk te mi ngi tàmbale di tasaare eh, nguuram gaa ngay gën a yaatu mu dem gëmloo ko le bo dañoo war a jàppalante man ak yow nga doxal ma doxal diine ji man mu tasaaroo yow itam sa nguur gën ci tasaaroo waale sëñ bi d'accord ci loolu buur ba buur ba ma nga tuddoon muhammad ibnu saoud moom muhammad ibnu abdul wahab mu waxtaan ak buur ba ñu tënk seeni bir ñu ne nañ départ lan lañ jaayante ñoom ñaar alal jihaad dañu jaayante ci xare ñan lañuy xeexal ñan lañuy xeexal démonstration de force foofu la tàmbale nag léegi nag dépare dériya ba jazira bi yépp ñu nangu ko ci jaasi du kaay mu wax la benn baat de lislaam laa lay woo boo mënta ñëw danaa la fekk ma rey la rey ay nit yu bare bare bare bare taxawal seenu nguur ñoom man naa laa tuddal ñu bare bare bare ñoo xam ne ñoo leen rey ci boo demee ci taarixu Ibn Ghannaam da nga fa fekk gazawaat yi li ñu tuddee ay gazawaat ay xare yu yu sëñ bi def sëñ bi mooy kan Ibn Abdul Wahab ceeg Muhammad bin Saoud ñoom ñaar ñu rey da dugg nañ dëkk sàngam. rey nañ nangami yéeféer te ay jullit lañu kat ñooñu lañ tuddee yéeféer yi nangami nangam nangami nangam di dem buñ duggee dëkk sàngam atub sàngam dégg nga rey nañ fa mais ay tuuti lañ rey ay fukki nit ñoo fa dee nangam nangam ci jullit ñi nag ñaari nit ñoo fa dee maanaam jullit ñi même langage boobu mooy am maanaam sunna mooy li may def man bidaa mooy li ngay def yow sunna ci kaw bidaa ci suuf sunna ci kaw bidaa ci suuf sunna ci kaw lan lay tuddee sunna li muy def moom lan la tuddee bidaa li ngay def yow du cadre xam-xam de Muhammad ibn Abdul Wahab ñen la tuddee jullit mooy waa këram ñi ñi ñi wuyu wooteem ñen la tuddee mushrikuun mooy ñi wuyuwul wooteem ci bànneexu bakkanam rek la nekk affaire boobu nit yore leetar boo xam ne dafay dajji yi Mouhamad Abdul gëm Mouhamad Abdul Wahab ki yor lettre bi nañ ko rendi fa amara cheikhu bihi an yuqtala fa qutil te moom kat aw këyit rek la yor këyit wa nag mooy wax ne Mouhamad Abdul Wahab lii muy woote nii ak cànkutee ngi ci masala sàngam ak sàngam def cee jum masala sàng kan moo bind këyit woowu magam moom Mouhamad magam ka mu joxoon lettre ba ka mu joxoon téere ba pour mu indi ko jàng ko ci kanamu nit ñi Muhammad Abdul Wahab daan ne kooku nañ ko jàpp rey ko lan mooy bàkkaaram moom dara am ku bañ wootee mu mu digle ñu fekk kooka ca jàkka ja julli àjjuma buñ julli ba pare ñu dugg fekk ko ci biir jàkka ji ko ci ndigalu Muhammad ibn Abdul Wahab xam nga force ba mat na foofa moom dem da nga doon jéem a démonstration de force waaye force ba mujj na mat na nga xam ne léegi yaay exil def loo neex wahabi yee nag fi mu tàmbalee fee la jëm faw ñu sëgg fii xam ne fii la tàmbalee ñu xool fële ne fële la jëm jëmut ak ñun ci kaay ma wax la kaay ma jàngal la kaay ma nangam ndax man bu fekkee man dama contre Ahmed Lo dama wax ne Ahmed Lo li mu wax nii juum na fii wala wax na fii li mu wax fii du dëgg li mu wax fii du nangam est nit dañuy dajaloo ci benn place ñëw ne dañuy xeex ak yow waaye kay day la nga waxoon ne lii njumteel dañoo war indi argument loolu mooy wax ci xam-xam xam nga kon naruñu wax ci xam-xam ilaa yamu diini lan lañ nar force force na ku ko amul ba pare di ko essayer bu ko amee ah kenn waxatu ko ñun nag duñ daw duñ ragal faale daal li ñuy wax ñuy jaral dee buñ jarul mun ñu bàyyi ko waaye affaire bi day gën a garaaw ñun dañuy gën a tàngalaat ñun ci cadre xam-xam man bokk ci cadre xam-xam day gën a tàngaat day gën a tàngaat mooy dañuy gën a li ñu doon attaqué ne lii du dëgg lii du yoon lii njuumte la lii sos la lii nangam la lii wax na ko ci tarixa du nii du nii du nii ci wàllu ci wàllu docteur Mouhamed Ahmed Lo day gën a déclenché mais du ci jëm gannaaw mukk comme léegi affaire bi léegi kaay ma attaqué la dama fu ma la fu ma la jàppee dama lay dama dóor wala damay xeex yow ah <laughs> du tax affaire bi jëm jëm gannaaw day gën a jëm ci kanam dañuy tàmbali beneen silsila boo xam ne ci docteur Mouhamed Ahmed la jëm waaw ah. yu yuñ waxul woon ci téere bi ak ci yeneen téereem te muy ay njuumte ak ci tuuma yum tuumaal ay nit wala nangam nangam yooyu dañ koy gën a génnee dañuy gën a dañuy gën a avancé ñun incha allah waaw waaye nag bëgg naa nit ñi ak population bi ak société bi ñu xippi xam ñu dem gëstu ji Muhammad Ibn Abdul Wahab fan la tàmbalee fan la yem xool gaa yii fan lañ tàmbalee fan lañ jëm du ci àggan lépp lu yaatu rek dëgg ko yaatal yàlla sabuuru la tudd nit mën nay def connerie rey nit ñi ba yaatal woote ba mu lëmbe réew mi yépp te yàlla ngi koy xaar inna rabbaka la bil mirsaadi yàlla du caageen lépp lu yaatu rek ñu ne non dëgg la moo tax mu yaatu déedéet wahaabiya buñ amee ñetti nit rek ñu ne li tax ñu am ñetti nit mooy dëgg la moo tax déedéet mën naa nekk cànkute téeméeri junni nit topp ci nag te sawara lañ jëm loolu yëpp mën naa nekk waaye ñun moom bu fekkee affaire u xupp affaire u kaay leen dee dañoo pare démb bu fekkee affaire argument yi itam dañoo pare démb waaye nag ñun duñ dox ci kaay leen dee maanaam kaay kaay leen ñu ñu xeex déedéet kaay leen ñu wax ci xam-xam la ñuy dox ba kenn fekk ñu fa xeex ak ñun ci xam-xam ba ku ñu woo ci xare nag boo xam ne maanaam dang ñu faa dang ñu faa dang ñu faa fekk ñu fa nga xam ne xare rek xeex rek dafa def moom faaw ñu xeex waaye nag woowuñu leen ci loolu liñ leen woo mooy lépp lu ñu wax ngaan ko suñu gémmiñ ne docteur Mouhammad Ahmed Lo wax na nangam te loolu amut kenn jóg rek ne yaa juum kenn jóg rek ne fii nga ko teg du noonu kenn jóg rek ne noonu du nii kenn jóg rek tont ci foofu la doon baax waaye benn waaye di leen tontu mosu leen koo gis mosu leen koo gis mosu leen koo gis muy dajji li sëriñ bi wax di dajji li sëriñ bi wax di dajji ba benn bis ngeen gis ko nag nekk mbooloo mu bari rek daal léegi nañ ko jéem a xupp daal man téeméeri nit ak ñaari nit a yem ci man bi man moom la ma doon wax du changé virgule dañu ci te kenn teggoo ci virgule itam man loolu laa jàppee gàcc maanaam ñuy wax sa sëriñ de wax na ngam te lool de mi ngi nii waxuma ay seex wax na lii de te luy layam ak yooyu de loolu da ngay laaj man dama naan lii du dëgg mi ngi nii nii muy mi ngi nii nii mu leer nañ loolu dangay gëmmu dem kenn mënu ci dara lan moo fi def xeex kese yi ngay xam ne argument zéro dara amul fa ah kenn nag warul woote pour violence maanaam woote pour démonstration wala woote pour nangam waaye ñun de kenn duñu tee dem fenn moom benn soxla bu ñu am ci fenn di fa génn maanaam am lenn lu ñuy téye loolu mënta nekk te li ñuy wax itam du changé day gën a tàng rek day gën a metti xanaa ñu am ay argument yu dajjee wax ji bañ ne lii ñu li ñun de li ñu waxoon ndekk du dëgg ñu daal di bàyyi waaye li ñuy wax feeg mi ngi leer naañ noonu lañ koy waxee niñ ko sentiré noonu lañ koy waxee kenn mënu ci dara mbooloo ñaari ni ak yépp a ci am loolu faaw ñu xam ko waaye nag li ma bëggoon a leeral ci jotaay bi sax du sama diggante gaa yi démb waaye li ma bëggoon leeral ci jotaay bi mooy maanaam nit ñi xippi xool fi nit ñi tàmbalee ak fan jëm tarixa bi fan la tàmbalee fan la jëm wahabiya fan la tàmbalee fan la jëm faaw ñu xam ko pour ñu xam lan la ñuy programme ci kanam loolu laa bëggoon ñëpp bàyyi ci xel wasalaamualeykum wa rahmatullah mbok mi ganna bi ci tane video ba pare ñu ngi lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm mu fekkee gënd ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi lii nag doo ci fay dara te dina tax video buñu dëgëlati di nga ci jot jaangi jëf